Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Ndeysaan Modou Jam Téeri Ndeysaan ma nga noonu Ndeysaan ak Jaasi Pël Jaasi Pël Modou Jam Téeri ñaari xale yaa ngi noonu combat bi mbaa bi yoon dina gaaw Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ñëpp ngi toog di xaar mu mel ni làmb ji fi mu toll ni ñu ngi xaar final poids lourd bi ndeysaan Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël Jam Téeri ak Jaasi Pël ñoom yaa ngi noonu Modou Jam Téeri ak Jaasi Pël ndeysaan jaasi pël Modou jam téeri ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngi noonu en tout cas lu mën a xew mooy lamb ji tey fii ci ñaani ñaning làmb ji neex na torop waaye sonn nañ xale yi guddee nañ ndeysaan gaa yëpp sonn xoolal ma boo xoolee Fadel bu Dakar Buzz ni mu toogee sëngëm buur géwal toog sëngëm nga xam ne toogaay bu yàgg arrangé wul mag fi mu toll xale yi rek ngay dégg ñuy wax <laughs> xale du caaxaan barki yénente bi boo xoolee Fadel xam ne fi dolli sonn la mënatul dara yaa bee ko gën a sex rek la bëgg ndax njaboot geeg koy xaar fi mu toll nii soxna saa koy xaar ñu koy woo téléphone rek ndeysaan instant yi bëgg naa ñibbi Fadel waaye nag àdduna noonu la liggéey bi moo moo moo li tubaab naan situation oblige situation bi moo ñu obligé loolu kon ñu gën a góorlu rek ñaan jàmm ci réew mi boo gisee fee ca Israël ak Palestine la fa xew neexuñu ndax ay réewu jullit jullit yoo xamante ne dañuy dugg ci bërëb bi ñuy jaamoo yàlla. nga dugg fa di leen di dóori bal nga dugg fa di leen sànni grenade lacrymogène di leen xañ jaamu gi nga xamante ni moom lañuy ñuy jaamu suñu boroom te teguñu ko fenn képp kuy jullit mettit lu na ko képp kuy jullit naqaru na ko képp kuy jullit keroog am nga loolu lu la metti ci say moroomi nawle jullit woor ci weeru koor amul luñ leen jox ndogu lu dul xeet boobu jël na dina ko daan wala déet dina ko daan da koy daan daan na ko daan na ko ndeysaan Modou Jam Téeri daan na Jaasi Pël la ma la daan na Jaasi